moom alaaji mi toog ku fi mas a wax tontu na la audio bi fi mas a génn def na ci commentaire am léegi lu tax Cheikh Baara wax mu naan damay bàyyi ba ajjuma ba mu wax damay bàyyi ba mu wax ba pare ma doog a wax dinañ ci ñëw gaa yi nee nañ ko nag loolu ah, dafa non dafa waaf non non non dafa waaf alaaji dafa waaf <laughs> léegi nag waa boobu waaw mais waaw d'accord mais moom mi nee nañ ku mas a wax dugal na ci euh, làmmeñam wax ci léegi nag lu tax moom Cheikh Bara wax mu damay bàyyi ba mu wax ma doog a wax loolu dinañ ci ñëw ci kanam ma jigéen acca ah. ñëwal euh, jaajëfal Naté après ñëw ci Ismaïla Madior Fall xanaa kontaan rek son yu bu di wax ni lii mooy buzz parce que sénégalais d'habitude li ñuy jël ngandal ko ba mu ngand ba mu def tour Sénégal en général ci ay po rek nga koy gis gis jigéen buy lëmbal fee ngeen baal ma si kan noonu la tudd wala ngeen gis koo xamante ne nii def na ay actes yoo xamante ne nii mm-hmm. euh, du loo xamante ne nii lu ñuy rafetlu la ci diine lislaam mais da ngay gis fu muy toll ci réseaux sociaux yi. Mm. kii tey jël lii mu jël. Mm. maa ngi koy wax léegi loolu mooy bët lii moo waroon. wër coupe du monde ci alxuraan fépp fépp fépp ci ci ci ci Sénégal ci àdduna. Mm. man de wax fa dëgg yàlla ñee naa ko trop vraiment. di ko ñaanal yàlla suñu mboom yàlla na yàlla def ko magum l'islam. Ah, yokk wëral baatam en plus. puisque si baatam la amee lii yàlla na ko yàlla suñu borom taxaw te aar ko sàmm ko mm. te aussi may wax képp koo xam ne nii ndaw nga nga jéem a roy si moom mais paa ngay roy si loo xamante ne ni musiba rek la lay jural waa di jaajëfal tamit kaka jàngal ñu ngi koy ah. ñaanal moom itam yàlla na yàlla suñ borom sàmm ko amiin waay voilà Ismaïla Madior Fall nee na Mimi na bàyyi war war jeg jadd jadd ji sinon dinañ ko teg ci yoon waaw son yi bu dee fa dëgg yàlla problème mu Mimi moom dafa dem ba léegi finalement nit yi doo amatuñu sax ñu ci wax parce que daanaka. saay soo xëyee ñu koy néewal doole duñ ci wax. saay soo xëyee mooy nekk actualité kon donc vu que moom wax na wax ji xam na ay droit am Mimi doful. waaw waaw jàng na xam na li yoon wax. ak li yoon tere donc wax na ko mbir yi parti APR dafa am hmm, coalition coalition Benno Bokk Yaakaar am te moom la fa duggee. te te te aussi tamit ñi ba xam na ni mu ngi woon ci biir parti bi. mais li ko fal mooy Benno Bokk Yaakaar. kon donc Ismaïla Madior Fall na def liggéeyam. pas mu nekk fii di menacer nit yi que def yoo xamante ne nii. luñ ko santul la bëri na problème yi fi nekk. kenn lijjantiwu ko mais bu ñu jël yi nga xamante ne nii. amul kii ñu ko bëgg ko jël def ko loo xamante ne ni maara day taal yi problème mu Cheikh Bara ak Sa nag sony bu balaa ngay àddu ci dara day fekk tamit nit ke wax mais audio yi fi mas jaar yëpp audio yi fi mas a jaar yëpp na ci mas a jaar yëpp lu fi fiyute wax na ci commenté na si mais comme que borom nee na nañu bàyyi ba mu leeral ba noppi comme nga moom rek moo mën a ñëw euh, setal boppam ñu koy waxal ak audio yi ñu ko suba yàggatul suba la alxames yàggatul incha allah na du ñàkk bu waxee ba pare Sa Ndiogou moom it dana si wax lam sa xam ay jë alaaji avant loolu lépp soxna Ndate. Mhm. waaw daara ji amati na ñuy wax joyeux anniversaire à Betty Mbuub. ah tey la bés bi ah tey démb moom toj na télé bi kii bi. <laughs> vraiment teraanga ji gis nañ ko. Euh, ñu koy souhaité tey nag comme que tey la bés bi. danga ko fàtte woon sax sama léegi la ci sama xel dem. voilà ñu souhaité ko. Mhm. Euh, sooy bu. alaaji waaw macha allah euh, wax dëgg fa yàlla mbégte ak bànneex la ñu am. Mhm. que day wone rek ni Sénégal. Euh, maanaam ci conditions yu difficile mhm. yoo xamante ni bi daara mi ngi ko fiy jonkonteel mhm. nga xamante ni la warloog ñoom mhm. maanaam defuñu ko ñu nekk ñoo xamante ni bi dëgg-dëgg wax dëgg fa yàlla euh, kumba amut ndey lañ ñoom daara nga gis coono yi ñuy daj yëpp mais ci euh, difficulté yooyu ak kii yooyu gis nga indi nañ fi ñaari yoon ndam li waaw ndam li indi nañ ko ñaari yoon Mouhamed Moujtaba Diallo indi jàll ko donc tey ndati indi na ko donc loolu dafa nekk loo xam ni wax dëgg fa yàlla day wane rek bu ñu leen gënoon a jox yitte eh, defe naa ni kon eh, kenn dootul jonganteeg ñoom dëgg la parce que difficulté yi nga xam ni moom la ñuy jànkonteel ci biir réew mi eh, ak nga xamante ni booy jàng daara rek ci coono yi ngay ne te terewut gis nga li nga xamante ni bi wax dëgg fa yàlla ñi ngi koy def loolu nag nekk loo xamante ni bii wax dëgg euh, tey jii defe naa ni bu fekkonte ni dañ woon senegal mm. euh, kenn génn na fii mm. jël na ci wàllu nàngam mm. ci wàllu jàngum tubaab matt ak wala kii ak yenn yeeg yooyu boo defu ndànk dinañ ko gën a jox yitte ñoom nguur gi waaye nañ gën a jox yitte daal moo tax may wax man pareen saay ne mm. ñi xam alxuraan bëgg alxuraan it nañuy gën a doon tamit laaj réew mi ngir gën a mën a jox li nga xam ne mooy alxuraan buñ ko seetaan ak gaay buñ ko seetaan ak gaay waa gis naa ci nag nuñ ko feetee tamit mm. pareen tamit nañu moytu yenn yi mm, parce que gis naa ki nga xam ne mooy sëriñu daaraam ñu koy yëkkati di ko sànni mel ni entraîneur bu mhm. jël dara dañuy wane mbégte xanaa waaw mais mbégte xam nga alxuraan la mhm. bu donc jàpp naa ni loolu moom euh, xaw na nekk njuumte ci côté boobu mhm. parce que man bu ma dama lu may wax damay wax ne bon côté boobu moom parce que sëriñu daara bi ñuy yëkkati di sànni noonu kenn xamut xam nga entre ñi koy def noonu ci football football kooku day entraîné ak yooyu maîtriser nañu waaye waa mais ñii ñii sànni <laughs> mën nañoo bañ a ay borom bloc euh, waa ji mën naa yeewu faja sax du du julli fajar mën naa nekk am na am mm-hmm. problème mën naa waa sooy bu waaye <laughs> ah. <laughs> <laughs> xam nga ah ab sëriñ xam nga jékki-jékki di ko yëkkati si sànni yow xamoo kii mag xam nga boo wax dëgg fa yàlla eh, mën nga ko tas te yooyu yëpp tamit aussi pour waxaale rek waaye di wax ni daal xam naa mbégte gi moo demee noonu waaye nañuy calculer tamit aussi eh, yenn yi macha allah ñu ngi dellu en tout cas di féliciter eh, sëriñu daaraam bu baax a baax di ko ñaanal wax dëgg fa yàlla Sénégal amel nañ ko njukkal li mu def am na solo trop waaw léegi xam naa mbiru mi yow moom Ah, comme d'habitude garaawul léegi bàyyi noonu mu dem mu seet waaw ñëwal alaaji ci li réew mi di xaar suba ak jàmm insha allah moo ci tey moo ci des waaw mais réew mi nee nañu mm-hmm. alaaji sanjoogu ma ñu gisoon gisatuñ ko mm-hmm. lu fi masaan a génn nga wax ci lu tax mbiru baare mm-hmm. Bara nga ni da ngay bàyyi ba Cheikh a wax ba pare nga doo ko wax waaw ñuy wax loolu peut-être ñooy ñi nga xam ne duñu ma suivre xam nga parensaay euh, di booy si déglu nit ki dee fexe tamit di ko dégg waaw euh, am na ñoo xamante loo xamante ni bu xewee tamit faaw lekk-lekk yàgg nga fay indi yoo xamante ni dañ naan ah nañu déglu tuuti